nag léeg-léeg. mu am ay neexal yu néew. yu jaar si suuf seen seen ngi tax a jooy dooroo ñëw ñoo ngi des sama. ah ne lu neex rek a neex billaahi lu neexul bokkul góor ak jigéen ci biir réew mi joxante loxo lu bees juddu ci biir réew mi lan juddu dimbalante lan juddu lu ñuy wax club foire club foire ci biir réew yi Gambie gii kañ juddu. ba mu juddoo léegi mu ngi am juróom benn weer lana ko tax a ñëw dimbali ñi nga xam ne ñooy liggéey nekk ci suuf mu dimbali leen nag ba ñu jëm ca kanam dama ne Globe Foire oote nag lan la oote fundraising gala diina ak lan fashion show bi mooy njëlbeen nag ñu koy def kañ lañ koy def nag ñu ngi koy def fukki fan ci weeru février 2012 bi fan lañ koy defee Kairaba Beach Hotel lañ koy defee mu ngi tàmbali juróom-ñetti waxtu waaye kan lañu oo kan lañu oo man Fatou Gueye seen xarit maa ngi ni ma koy waxee toujours rek man Fatou Gueye kenn bañu ma ñëpp ma bëgg rawatina waa Gambia man seen xarit seen soppe maa ngi ñëw pour bégal leen le 10 février incha allah yàlla amee maa bëgg ñëw Banjul defaral leen ba mu baax mag ñi nag dama leen ni na garaam bu buy jël yi jëm ca kaw ñu defar ba mu baax ñu toj jàng bu gën dawul rek duma daw maa ngi seen gannaaw ànd ak tan sàmm suusoo mii way mu neex ci biir réewi Gambie fii dama ne toog rek seetaan lekk ma suur naan ñaata la platinium forty thousand go thirty thousand silver twenty thousand waaye nag dugg ca biir rek toog seetaan di ticket bi thousand five hundred la nag lépp loo xam ne club foire am na ko ci daf koy jël nag yóbbu ko ca Labour Ward ba ak Royal Victoria Teaching Hospital dimbale leen ko waaye mu ne damay jël nag la fa am yóbbu ko ca fan opération Save the Baby bi nga xam ne fii nag suñ kilifa gu baax gi First Lady moo ko taxawal ci biir réew kon club foire jóg na jigéen ak góor jàppale réew mi ci Gambia réewi Gambia jóg leen Kairaba Beach Hotel juróom-ñetti waxtu a lay def Where every student is a tutor and every tutor a student. Jollof Tutors, simply the best in professional training. Lucozid Energy, energizing Gambia. registration man sa ko mo moy sim karo register prin kam sel lembang afri sel lembang comium qsel di ko abe register eh, bo jote hani peng ita ben jol ben to jolaje o ka ganya ibi la sim hmm. karo registration e ko fa moy dai telephone kala de e fa ni bita hmm. ya id card sama biometric id card kutama kutama da de hmm. wala passport wala eh, voters card wala driver license ni lu la muti banko la sidan kay don ja aliens card kan? wallahi la banko may bota ja passeport iri wada vida jor seje teng pri o kuma ya ta ba mari na nda fana ni na dimbal be sirgistan o nyun ko yow bari ku gulen bayar e ko momo mo lulu bo la registan la ne ko ne ro adu ni be momo registala isalon de ni malom ay fe mo fenke itele tam adu sid no registano me man internet ni seyosi fajana ka internet se aussi anin ke ba ko to be so kayde te bulu isiwol be sama merol nin keɓargol be anum fana aman jere ɓanan dambiɗa kana jam iɓe dawaɗa itu jibina e batarlaje ife interlaje cew alhamdulillah ngeen laa jógee nii ah waaw te nag dem fi xew mooy sim card registration mbooleem dooree ko gamsel laay nga amee afisel comium ba kiwsel nga registré soo ko registré am na looy yóbbu de mooy lan da yóbbu sa passeport ah de sa ID card ID card bu es bi laa wala driving license ak sa voters card wala su fekkee doo waa dëkk ba sa alien ID bi wala sa passeport yi waa dëkk ba. amul fay amul fay free la free amul dara looy fay moom neex waaw su ma caamee waaw am solo la de mhm. a suma njabooti bu nekk mun nga register juróomi nit te juróomi nit mooy maire yeeg paa ñoo xam ne amuñ kayit mm. wala xale yoo xam ne amuñ eighteen years mun ngeen a register waaye sooy register tamit nga seet koy register de soo register koo xam ne mu ngay jël sim card di fa def dara lu ñaaw yow la ñoo jël si su boobaa nag nga xam ñi ngaa register maire yeeg paa amuñ kayit yoo xam ne xale yoo xam ne amuñ eighteen years suñu amee eighteen years ñu dem register seen boppa su ma caamee jërëjëf jërëjëf jërëjëf Birane وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا Haji Yaya AJJ Jammeh la ñattu kayato même la chief petronti gamtel gamsel staff association mo mantale kote ke ila sango sang independent weekend grand gala dinner dance and show ñinang inin tele ngara balle bakela ali reminder and the set sima pap chopet ndole